maaleykum ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar di wax ne mu xam commission organisation ni mu waajalee woon màggal gi ci ngir ci taxawaay yi ci war a amal jëmale ko ci nas lépp loo xam daa tax nit ñi mën def seen siyaar ci niñ ko bëggee ci biir ak ci fuñ ko mën a bëggee rek boo xam ci biir jumaa ji lool ci armée yi lépp loo xam ne aju na ci penc bi ñu di ko sàmm nag ci lépp loo xam ne yëllawut ak barab bi lu mel ne ñi nga xam ne fi nekk di jaay wala di wecce mi manqué wala ñuy yalwaan ma noppi yalwaan moom mi ñu amee kattan di kar nit ñi sonal yooyu yëpp dañ ko fi doon wattandiku bu dee njaay ma sax nangu nañ kuy taxaw di jaay walla kuy am laa di jaay ba dañuy bañ mooy nga taxaw wala nga wala nga danga taxaw fi lu yàgg loolu dafa doon bañ yooyu yëpp suñu borom dafa ba def nekk bu dee ci sàmmoor bi xam ne dañuy luubalkat yi ndax mbooloo bu dajee kenn ko ne xam na am nañu fay ne ñoo xam ne luubal rek yëpp nag suñu borom dafa tawfeex ba yaakaar lu ëpp ci liggéey bi taxawee nañ ko comme suñu gëstoo na tam nag doon doxee bokk na ca muy sàmmante yi nga xam ne nit war na sàmmante ci barab buy ñëw ci barab tëdd bi di jumaa ji yooyu yëpp doon nañ ci dox di ko fàttali ni ñi moo xam góor moo xam jigéen yooyu yëpp nag def nañ ko ndax lañ bëggoon da mooy bu jigéen dee ñëw sol jot te fatt nga xam du yaraax du xat bu dee góor tam sol yiw rek kem di ko dee digalee su ko defee tam ci takkaay itam jigéen moo ko yeyoo bu dee góor nag moom ab jaaro la ca yeyoo waaye yooyu yëpp nag su ñëwee dañ koy fàttali rek fàttali goo xam ne dana dëppoo a yar ak teggin waaye du ànd du fitna noonu liggéey liggéey bi ba yaakaar naa démb di su safar maa ngi maa ngi jàmm te jii ñu ngi fii ci att bi ne gis ngeen ko waa comité bi sëñ bi Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor taxawaay maag la moo bi kon mel na liggéey mel na ne kon mel na ne cate na mu xam ne xëy na yàlla doon taxaw loolu liggéey tam mel na ne am na ci bu ñu ko xaymaa ci globalement rek jàpp naa ne lu mu gàtt gàtt dana am quatre pour cent moom xam naa 100 pour cent yi moom xëy na àggagu ci ndax jeexagu ndax bu ñu maa lépp lépp rek mooy les commission commission secrétaire liggéey ak commission sociale ak waa finance ak mboolem commission yëpp rek ndax sociale tam seen taxawaay ci màgg gi tam lu lu la ndax gis ngeen infirmier bi nga xam ne ci biir jumaa xam ne ajuma jot dañuy liggéey waaye màgg gi dañ koy yokk moom itam seen taxawaay gis nañ ko ci biir mbooloo mbëri dañ fa recevoir waa commission culturelle tam ñoom itam màggal tam ñoo tam waajal ay conférence yu bëri fi ne fi ay ay yu bëri bool ko exposition boo xam ni dañ ci xam le yi jumaa ji waaye tam lépp loo xam soxal na murid gi boole ci rawat naag euh, ñaanul sëriñ bi ren jii itam loo sababoon ñu jagleel exposition bi maam Thierno borom Faat Thierno Ibrahima Faat borom Daaru nga xam ne moo leen doon waxtaane liggéeyam ak sëriñ bi kenn ku xam na ko kon daal wax dëgg xibaar ci tënk sëñ Mouhamed mën naa jàpp daal liggéey bi daal lu ci lu ci bëri cate eh, na communication itam ñoo itam kenn di mañu des ndax yaakaar site MK TV ci laay waxee nii ñoo itam boobu léegi ñoo ñu ngi ànd ak mu xam ne xel ma bi képp ku fa ñëw bu la saytoo jox ngir nga dugg maanaam def say visite boo demee dañu boo demee dañu seetoo ak te ba xam li nga jël jaadu na wala jaaduwut su ko defee ñooy itam kon li ñu war a def ñoom def nañ ko mel ne kon daal ma xam ne global daal kon jàpp naa ne 100 pour cent yi moom incha allah bi tuutee tee ñu àgg ja jeexit lañu xaar yu ñaan si borom mottali ko ak jàmm di ñaan fekk déwén nit ñi nit ñi dellu ci jàmm waaye itam di masoo ak. ak tiis lu itam ñi a xam ne doon nañu am jafe-jafe di ñaan seen bakkan suñu borom jéggal yërëm leen tabale àjjana gën a kawe ñi nga xam ne tam ay gàllankoor moo leen dal ci ay tawat wala ay rëq-rëq yoo xam ne ay blessure la suñu borom defal saafara kenn tam bañ ca toppaat ci amagul li déggul ci xibaar ci ne moo faatoogul ñu ngi ñaan fekk di wér a jaam ak suñu Tuubaa jërëjëf